sëñ bi ah, man la ba Seck dëkk Diass léegi bokk ci mouvement bi nga xamante ne ñoom ñooy xeex wàllu mbalit mi ñu bëgg indi ah, a laaj rek fi mu ne nii doxu ñaxtu bi ñu organisé woon euh, le treize. vraiment nous ngi remercier population de avec ak le chef de village euh, parce que vraiment bi nous avons nous nous nous ci nous euh, parce que les lu def dañ ko nous nous ci yoon yoon nous ñu nous nous am nous nous des nous ñoo nous ngànk nous nous nous ci nous Nous, ak des nous nous suñu ak nous nous dox nous Euh, président conseil rural bu Diass moom dañ leen dañ ko ko indil ci dëkkam en 2005 bu ñu ko ko indilee ci dëkkam moom mu xeex ko ñaxtu ko bi mu ko ñaxtoo ñu jële ko dëkk bi ñu wax gàndun ñu yóbbu ko Diass léegi bi moom moo ko bañ gàndun indil ñu ko Diass kon ça veut que moom yemalewul euh, population bi ñun nag loolu moom moo nekk loo xam ne métti nañ ba tax na ñun li ñuy wax mooy ne Nous tax ñu ne de ñu remercier population population eh, Bandia Kiñaabu Nous remercions ñu parce que ñoom vraiment gis nañu eh, ci parce que nous ñaxtu boobu dem na président de la république wone na boppam que taxawal ya ñun deuxième ñaxtu bi comme lolu wax nañ ne arrêté ñu liggéey ñun li ñuy ñaan mooy ne sitting bi buñ koy def dañu bëgg ñoom ci seen jum bopp ñoom ñu jëlee seen matériel foofu yóbbu ko au niveau Dakar léegi nañ ko delloo fu ñu ko jëlee woon léegi li ma ciy tegaat mooy que ne ñun mbalit ñu arrangé wu parce que projet président de la république bëri yi nga xam ne def indi na ko jas comité lu jas andul ak lu xeetoog mbalit refatul ak moom ba tax na ñun vraiment dañu bëgg moom président Ablaye Wade mu jàppale ñu ci loolu xam ne projet yooyu su nekkee ne ay nit ñoo ko bëgg a fagaagal nag gis ne ñii population bi ñoom bëgg nañ seen bopp bëgg nañ seen askan bëgg nañ seen gox léegi loolu moo ñu poussé pour ñu def loolu te ñu ngi koy ñaan moom président de République di ko ñaan moom mu defal ñu délégation spéciale au niveau Diass ou bien commune parce que sonn nañu sonn nañu fait pour des terrains def au niveau de ñu ñuy bëgg parce que ñoom bu ñuy dagg benn quartier bu ñu yëgal quartier ba waa quartier ba dañuy gis nit ñu ñëw ay deux trois conseils ñu ñëw di di te sans autant que ñu avertir population bi quartier Mais mais gis nag ñun loolu désormais ñun nee nañu bugguñu ñuy root mais képp koo xamante di nga nous lu mel noonu il faut ñu parce que

kon nag Benno bu amee projet su nekkee day neexal waa Ndakaaru xamal leen ne ñun dañu bëgg a génnee projet bi eh, mbalit mi Ndakaaru yóbbu ko coté Diass ñun du ñu nangu loolu tey duñ ko nangu suba ñoom nañu yem ca la ñu moom ñu yem ca la ñu moom mbalit bu nekkoon lu baax la boo amee ab ñaari jabar ñaari soxna nga am ko bu kii balee tuur ci néegu kii di nga àtte ba dee kon nag ñun loolu la ñuy bañ mu egg suñu biir